Saliou match bi daal xawoon na neex sànq bi mbalax maa ni sëppee dem Pawlish qui laisse la balle Armand Armand dans la surface de réparation peut-être pour chercher attention une égalisation Attention, peut-être pour chercher. Attention Plus l'égalisation